loolu décision bu mel noonu yeewu askan bi warutoon am pour jël ko parce que invitation dialogue ay partis la ñu invité te les partis son vraiment autonomes donc partie bu si nekk yow yaay xool euh, ci ni nga gisee situation dëkk bi mhm. ban rôle nga ci war a mun a jouer ndax dialogue bi dina am solo pour euh, solutionner les problèmes ou pas léegi gis nañu ne demarche bi yeewi utiliser Euh, wala ñenn ñi ci Yewwi parce que consensus amul alors que Yewwi dañoo mus di fonctionner par consensus mhm. amul décision boo xam ne conférence des leaders da koy jël simplement parce que dañoo ne majorité bi fii lañ féetee non dañu ciy waxtaan ba ñëpp déggoo ci ñu soog a jël décision donc li ñu gis mooy euh, bi président Macky Sall defee oote bi avant sax Yewwi di discuter de la question mhm. am na ay parti yoo xam ne dañoo jóg ne ñoom du ñu dem ci dialogue bi donc ñooñu seen position parti lañ joxe. Mm-hmm. donc ñun taxawu Sénégal boobu joxe gu ñu woon position même si am na yenn département yu indiqué woon ne taxawu war na dem. Mm-hmm. ñun dañoo defoon consultation wax suñuy parti suñu parti yëpp ci département yi lan ngeen xalaat sur la question léegi bi ñu tënkee lépp ñu gis ne. ñëpp dañoo ne euh, taxawu dafa war a dem ci euh, ci dialogue bi mhm. donc loolu position souveraine parti bu ñuy wax taxawu Sénégal la mhm. donc bu fekkee ne yeew yi dafa am parti yu bëri yu si nekk ku si nekk nga am possibilité yow exprimer sa position ñenn ñi ne ñoom du ñu dem du ñu dem seen parti du dem euh, taxawu ne ñoom yaakaar nañ ne problème bi Sénégal jànkonteel faw ñu toog waxtaanee ko mhm. donc dañoo waroon respecter décision parti bu nekk loolu la F24 def F24 dafa ne parti bu si nekk yaay jël sa responsabilité sa décision bopp. Mhm. Yewwi aussi noonu la waroon tax